TV Sport Bantaba mu euh, nekk programme boo xam ne nag far na di ñëw euh, every week euh, Saturday 9 pm tey nag dinañ waxtaan ak Kampo yàgg na lool amuñ ko si ma Bantaba bi waaye tey nag amaat nañ ko si Bantaba bi ba tax na tey dinañ xool lu nga xam ne rek mooy event yu nga xam ne jamono bi passé nañ si. Euh, event yu amoon doole fii si biir lii dama réew mi euh, dinañ dem xooli nag Serekunda ama is ama final bi xewoon diggante Milan Rossoneri ak ñii di ama Hannover dinañ xool euh, Real di Banjul wane ne am nañ mutual understanding seen diggante ak coach Major Major nag nekk coach bi nga xam ne jamono bi bàyyi na li di club bi ak li Real di Banjul gis nañ officiel ama message bi nga xam ne moo bàyyeekoo si Real di Banjul ama page bi Euh, si kanam tuuti rek dinañ engage kii di ma Mr Bacha euh, Bacha ñëpp xam nañ ko si wàllum lii di pon league waxtaan ak moom si yeneen fànn yi euh, sport fii si biir lii di ma réew mi lu mel ni Petrogaz si lëkkaloo bu nga xam ne am nañ ko seen diggante ak ñii di ama female football fii si biir réew mi muy Gambia Football Federation ñoom ñoo yëre loolu yëpp dinañ ko tamit def football association bi ñoom it am na bànneex bu nga xam ne rek jot nañ ko si Gambia Football Federation Real Waalidaan football club nag eh, seen fu ma midfielder bi Ibrahima Sona moom it nekkoon ndaw lu nga xam ne président lii di eh, foofu si biir lii di Waalidaan dig ndaw yi twenty yi eh, match bonuses suñ ko winee tey Waalidaan ñu ngi play tey suñu winee dinañ am ten thousand ak seen next game bi lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di Kampo nuyu askan bi di ko seetaan Kampo ñu nuyuwaat la bu baax a baax si Star TV Sport Bantamba. waaw ah, ah, seetaan ni Sista TV si ah, bantaba bi comme noo ko waxee lépp ah, jig naa <laughs> jig naa ñu xam nga bi bi bi moo tax ba ah, tàngoor te bantaba bi namoon nañu ah bantaba tamit nama nama waa tàngoor tamit to share platform with tamit du nuyu tamit suñu bu fi nekk tamit di baatal suma waaye la xam kon moo ko dee wax la woon foo woon naa leen Uh, jërëjëf Kampo uh, kon nag uh, dinañ dugg si biir waxtaan bi xool football comme nu ma ko waxee rek Star FM nekk nañ Star TV ñu jégalu ah xam nga rek dañ miin FM bi <laughs> waaye nag nekk nañ ñi nga xam ne wax dëgg. lu nëbbu lu ne euh, yàgg na di ko waa ñoo koy feeñal euh, ñooy génne lépp lu nga xam ne moom la askan bi soxla hmm. euh, ba tax na nag demoon nañ ne xewoon na foofu bi final bi Milan Rosenali ak ñi di Hanover maa bi nag la mujjee woon ñu dem penalties ma Milan Rosenali win five three ba tax na nag di gis nañ officiel tamit ñoom ñoo nekkoon ñu nga xam ne ñoom ñoo sponsor li final bi ñu gërëm bu baax a baax si jàppale ñu ngi jàppale li di football Kampo Euh, balaa ñu dem xool élément bi euh, dinañ xool euh, Serekunda East nekkoon si difficult position mm. balaa ñu egg si final si gisoon lot of things mu happen si pëj bi waaye ñëwuñ tamit zonage bi euh, ñu gis Milan Rossoneri ku ko wax wax na war na xam ne mhm. am nañ doole in Serekunda East mhm. euh, Hannover tamit dëkka tali ñoom it nekka team bu nga xam ne am na doole euh, jamono bi ñoom ñoo play final league cup bi ñu gisoon fa ministre of youth and woon nañ ñoom Marcel Mendy ñëpp ex nañ foofu mhm. so mu nekkoon bés bu nga xam ne bési football la woon si zone bi nuñ mun a jàngatee Milan Rossoneri ak ñi di Hannover penalties lañ mun a mujjee pour mun a am victoire si ñoom ñaar waaw mbay seneen na ñaari teams seen seen nawetaan games yi Euh, nekk team boo xam ne one of the best team la Sova si Serekunda euh, euh, is nawetaan bi because xoolee it's very sad zone bi dañ dee teel a jeexal seen nawetaan games yi waaw da ngaa ci mën léegi time bi la gaa mën a jeexal seen nawetaan. waaw because amoon nañ som waaw complexe moo amoon seen diggante ñi suñ génnee former comité bale jógee ko foofu ñëw you know am push and pull exactly lu ma fa nekkoon seen seen nawetaan mënut a jeex te mu ngi jeex si bi la jeexee so da ngaa jàpp ne euh, hand over nekk na team bu mag biir biir Serekunda euh, biir Serekunda is fii mi na rôle team boo xam na non mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yi ñëw dem ba final bi ne ko seen first time sax gars yi jël ah, Milan Rossoneri waaw ah. ah, gars am that confidence ici seen seen doyu ndew tamit parce ko tuddee mboyo fii académie loolu tamit contribué na trop tamit tamit seen coach bi yaakaar naa si team bi mooy sànq ak ñoom euh, Daniel gars yi am nañ very good setup boo xam ne xam nga am nañ expérience so ñoo ñoo ñëw dimbale gars yi tamit gars yi def another history bi loolu la gën a soppati boo xam ne nekk mu doon dóor big xam nga la penalties la xam nga penalties yu never know pour sa waa sa intention nekkut pour nga ñëwoon loss so ñoom gars yi mujjee win à five goals to three so gars yi demee win six six six thousand dalasis UG plus for Serakunda is coming because those days, 50,000, when you know, you 10,000. So Lolo is, is absolutely a very good move from the, this new committee. But congratulations to uh, Milan for but hard luck to uh, Hanover. waaw euh, lu ñu defee mooy dinañu xoolaal élément bi euh, waxtaanale waat euh, si lu nga xam ne moo doon xew maaj bi amoon na some chances waaye nag mënuñoo capitalise pour rek mun a am capitalise ko chances yooyu am victory penalties moo leen mujjee ama jé mujjee am victory bi xajaro mu nekkoon very good final si diggante ñaari clubs yooyu foofu si biir lii di a Serekunda East Euh, comme moo ko woon rek ambiance amoon na fa euh, changes yi euh, amoon na fa waaye nag ne ñaari teams yëpp seen defense line bi was so compact ne daal mënuñu na am goal si biir force 90 minutes bi lu ñu defee mooy nañu xool élément boobu noonu some chances yi seen penalty shoot out bi ak presentation of trophy bi foofu sa Serekunda is mini stadium bi party. As far when I was predicting the case, I predicted it to be an encounter that would be fascinating and an encounter that we would see. Obviously, parents in 2000 will decide this encounter, as I said earlier on. But I wouldn't mind to say both coaches are very, very tactical. Where a particular player is giving after the final whistle. I think players should maintain discipline because there was an encounter that was very, very peaceful. Victor by Gutierrez, Arias down. Tang is moving slowly to the ball. He's about to kick. He kicks and he scores. Kanya is moving to the ball. Can he score? Yes, he scores. No. Arias scores. Last kick of the day. And yes! Milan gis nañ fa <laughs> Marcel Mendy euh, National Sport Council euh, ko fa euh, gis nañ fa ñu bëri ñu nga xam ne rek high ranking lañ ñu woon néemeeku final bi because Sony Serekunda is one of the best zone nga mhm. when it to football because produce nañ good players si national ama bi gis nañ tamit players yu bëri nga xam ne jamono bi ñu ngi play outside mhm. loolu nekkoon lu nga xam ne rek rafet nañ ko bu baax a baax ñëpp lu doon ut rek mooy na final bi dem so jamono bi final bi dem na jeex na si jàmm a congrats waaw di congrès comme na ko wéyee ah, di congrès ko di community di entire community comme na ko wéyee because sebeneen fa ay ay ay lii naka sa ay dignité comme noonu mentionné ministre bam fa ah, national sport council seen ah, representative bu mu fa tamit so feneen bi dem na si jàmm mhm. violence violence free hand over tamit ñoom ñoo luus waaye jël na ko in a good faith ñu tamit wiil nañ tamit professionnel gars yi loolu mooy the most important thing at the end of the day mhm. yëpp jeex na seen coow bi coow bi woon yëpp jeex na léegi so léegi gars yi à plante seen bopp pour upcoming nawetaan saison bi mhm. parce que it was so hard because ñeneen waxoon nañ sax final du amoon Serekunda is bu ko yeneen teams yi ñu ngi bañoon because of ko jël ba final bi jeex na so léegi nokka bi play nañ ko bi so congrats to Mina mila resonori team biri dan ko deserve nak ko team biri dafa yaga struggle nak ko nega tu pour vous pour the most experienced team olu bi do do ba amna 6 years si football uh, secondary is because of qualifier on guy do from hangal they produce lot of ngi play right now Tunisia moy Ramon Mendy legi mo ngi Sweden tamit si team bi la jaaro so ñu ngi rogal congratulations ak good friend bi nak seen xeet san ko wane congratulations for the spirit of ah, uh, moo waxee woon uh, foofu sa Serekunda is mini stadium uh, bi nag tamit lu ñu dem xoolee moo xam ne lu gën a um, shocking news bu nga xam ne hmm. gis nañu Real di Banjul football club bi bu ma waxtaan ak Star TV kàddu yooyu la wane ne lii dafa nekk lu nga xam ne lu ko la mooy ba bàyyi kii di coach Major bàyyi ji di Real di Banjul nekkoon coach bu nga xam ne jox nañ ko go ahead bi jox nañ ko lépp lu nga xam ne moo lañ soxla waaye all of a sudden rek Madior euh, bàyyi di club bi euh, loolu la na lu nga xam ne nag demoon nañ euh, néemeeku Real di Banjul football club président bi Mr Willy Abraham si office am si waxtaan xam ne ne am nañ ko ak moom si lu waral Madior war a bàyyi li di ama club bi ñu gisoon rek am on Thursday la breaking news bi génn around five ne Real di Banjul am nañu mu mutual understanding seen diggante ak kii di coach Madior bàyyi nañ li di club bi euh, ñaari parti yëpp euh, nangutoo nañ mhm. bàyyi na jamono bi euh, waaye nag ne ñu demoon nemeeku wili waxtaan ak moom ñu xool Real di Banjul soo xoolee Real di Banjul si ligue bi mu ngi seven position right now si mhm. ligue bi mhm. ñu manage pour am only three wins five draw three lose la Real di Banjul def jamono bi am fourteen points Euh, jamono bi lan nga fun na foog ne moo war a mun a motiver major ba mu war a bàyyi because Real war nañ ñoom daaxuñ kii di major euh, te tamit dafa nekk euh, pour ñoom. dinañ dem si kanam dinañ xool. interview ak président bi waaw dafa dafa dafa feel like xam nga rek it is time for him mu jël excuse xëy na mu bi tamit man suma un living la mooy suma un point point de vue bu nekk nag. bonut mu ngi comme loo ko welee mu ngi seven position la nekk te ñu ko te ñu ko raw ah, ñu ko raw nine straight game. in a row in a row ñaari lose rek la am. baa ñu ngi ñoo ko mm. dóoroon mm. second round bi force bi ak last second last game ñuy dóor ko poche poche poche dóor ko waaye nga tamit nine nine games yëpp daf ko win mu lose au Lingard loolu is remarkable performance la def soo xam mu ngi amee to him loolu tamit mu ñu ne Will tamit mu ne absent na ko waaw dafa dafa nekkoon énergie waaw Willy Willy bu ma joor bàyyi Willy fekk ko Gambie fekk noonu mu ngi fekkoon hmm. waaw waaye nga tamit ne game agence Brikam agence fii Gambie tamit bu ko ay lose rek xam Monday Tuesday rek Wednesday ñu dafa ah, ah, resign from as uh, as as. lan lañ mën a foog ne moo ko motivé mu war a bàyyi. non I don't know ba su dee su dee bi euh, joxuñ ko support bi. non boobu ma jël euh, jërëjëf problème moo ba euh, something ma ne hmm. wrong. loo xam ne xam si mu war a bàyyi. waaw waaw mu war a bàyyi du jigéen ñi bu bàyyee noonu. parce maa jox xam nga mu am contrat ak gars yi parce tamit mu fa isi anore ñu ñu play isi isi ñoom Palestine te mu ngi am dab dab dab bi a kon bu nekk fii sa kulifin bi sa sa ko ñu kulifin bi foo nga en ko fa afo boo am foofu foo nga en ko fa waaw so den boo xam ne xam nga rek xii di sigri boo xam koo wax moom tamit bëggu koo wax man daal kenn foog lii dafaa ñëw na def ne baa réel baa position bu nekk nii korel ni man seen fan laa demee am des support timide waaye tamit koral ni timide moo timide nun nu mel ak seen position baaxut seen position hmm. baaxut te te te hmm. is na promission comme team bi sax dina mën a win ligue bi bu ko ñu nekk di play bu ko team bi dañoo play ay three to four game du ñu mën a win game so loolu tamit is fo frustrated tamit but I don't know what la moo ko tax mu bàyyi but something moo tax mu bàyyi waaw du jékki-jékki rek mu bàyyi yéen euh, thank you very much euh, si kàddu yi nga xam ne moom la Kampo gaaral euh, si wàllum bàyyi kii di coach Madior foofu si biir lii di Real di dem nañ nemmeeku kii di Mr Willie Abraham déglu ko bu mm. coach bi di bàyyi nekku fi mu ngi foofu sa Angleterre mm. waaye nag am na kàddu yi nga xam ne nag waxtaan na ko ak Star TV dinañ dem déglu waxtaan yooyu ak club président bi lii di Real di Banjul Mr Willie Abraham thank you very it was a surprise to us anyway. The, Major you the information through the technical director Pulwane moom daal he believes ne he cannot continue job um, pour man it was a shocking news because Major is somebody koo him pour mu ngi naa concentrate ak promise nañ ko ne dinañ ko develop in putting him in any of the coaching courses yu Gambia Football Federation bi they organize pour mu gën a develop boppam and he's a young man koo xam ne in the club everybody gave him full support everybody was trying to encourage him to be in the team for long term not short term so um, man I was not in the country bu ma news and it was a shocking news for, for me. And luckily, I came back on Monday, Monday Rajipsi. And then that same Monday, we had an executive meeting immediately to resolve the issue. Um, amuñ benn problème ak moom but maybe he felt a lot of pressure dafa believe maybe team is too heavy on him because of the expectations from I mean especially the fans the fans I mean they have been crying for titles, and I don't blame them. Um, Real is a developing team. ñun dañoo business pour mun a mun a survive and this year gis nañ ne is the first time in the history of the club bu club bi sign a sponsorship deal with NetPage to at least assist us financially because daf dee metti torop uh-huh. it was a good thing we got somebody like NetPay to come on board with some money for the club. So this news was very shocking. Um, he's a young coach. There is no problems between us and life has to go on. We will wish him well in his future career and the club has to continue. Okay. So, Euh, monsieur président euh, sa kaddu kon dafa mel ni euh, Madior dafa jël décision bi sa gannaaw boo tukkee ndax dafa resign sa kanam. non bi moo resign nekkuma fi because mu ngi resign Sunday ci guddi after suñ game against Gamtel. te bi match bi nekkee on maa ngi call maa ngi find out I mean everybody wax na ne ma boys yi play very well Gamtel scored in the last penalty. minutes of the game, and it was a penalty against us. So I don't think it was the fault of the coach. Players, they played well. Munuyo score. I think we have not scored in about three matches or which is not good for the club in terms of players, I don't think we are lacking any good players. We have a very good squad of players, so we should be scoring goals. And um, this happened in my absence, and we took it in good faith. mooy li ma la wax léegi nii nekkuma fi woon but bi ma delsee am nañu a good meeting and we have put in place now somebody temporal that will take up the um, the, the matters of um, coaching until um, season bi jeex because two matches moo des pour pour first round bi jeex and we have confidence in this person and especially the technical backup bu nekk in the team te technical backup bi sax major moo moo ici di technical backup moom moo ici um, Baye Omar Samba moom moo ici Fodé Sarr te definitely I mean they are going to continue their work with uh, Moussa Ndiaye who's coach Bala moom dina jël over um, responsibility bi as head coach and the technical director also Pape Souare will continue to assist from behind. and we don't see any any problems. Okay, uh, bi gisuloo gisuloo trophies loo gis rek mooy make money out of the club jaay players yi because Major amoon na very set of good players last season nga sompi many players against Banyo Felix Hawks wax nañ ne am na players yoo xam ne dem nañ ñu bëri daal wax nañ ne di problème dafa lie on making more money than trophies. tey boo demee si training ground bi there is about twenty eight twenty nine players yu nekk foofu so that should be an issue when you have a squad of players soo fa génnee benn or ñaari player I don't think it should be a problem club bi has four strikers so but we are not scoring club bi has maybe about ten midfield players but we are not scoring so I don't think it's a problem of ne dañ génnee benn player against Hawks or ñaari player against Hawks no benn player bu ñuy goalkeeper bi Ibrahima Diadio Ibrahima has been injured since before season bi start depuis last year la gaañu in the national team duties depuis boobu he was out so we have other goalkeepers and we have been the goalkeepers have been doing well so it should be an issue of course team bi su player si mënut a dem si club bi baawut si Gambia ñun we are working not only for the club but we are working for Gambia tey bu national most of the players that are coming for the national team Real la ñoo jóge te loolu it's it's something loo xam ne it's a great achievement for the club it makes us proud suñ toogee ñu seetaan national team yi ñu seetaan players yi it means ne ñu ngi liggéey ok the other issue is winning the title we have a group of players yoo xam ne can win the title last year dañu reté wante ba the last minute title bi rëcc ñu understand in the second round we played we won 10, we drew one. Oh, oh, we lost one, sorry. that was a good run. But it's always a problem of we start bad and we want to finish good. And the definitely affect always. I don't know whether it's from the players or from the coaches. I cannot tell you what the issue is. Eh, jamono bi lan mooy next step pour Real di Banjul eh, ngeen e Keatika mu jeexal season bi lan mooy tax bi pour moom win league bi la ndax mu sustain si force fourth one and the fourth place. non xam nga coach bi fa nekk right now noon na ligue bi ak club bi. waaw coach mosoon naa win ligue bi ak club bi and then after mu disciple bàyyi ñu ut another coach so he's not somebody new but léegi football dafa ànd ak um, kayit ñëpp dañ bugg a coach bu am kayit toog si beñ bi noonu la ñoo développé because ñun ñëpp ñu ngi yaakaar ne within the next year or two dinañ move. suñ ligue bi to another level meaning na ñun yëpp ñu ngi yaakaar pour ñu professionalize and this is good for the country it's good for the value of the players suñ players yi bu ñu amee value it means clubs yi dinañ am more money pour ñu mu a ngeen a sustain suñ boppa am more projects def yeneen def yeneen um, yeneen affaire yu ñu bëgg a def so right now coach bi xam na ne we have just left with um, with the, club pour mu maintain team bi. ok su si mënee win league bi is not bad but the points that we have now we are in the middle of the table we are not far from the top we are not far from the bottom so it can go either way but moom jox ko team bi moom luckily for him he is at the training ground every day. since at the beginning of the pre-season he's been at the team. every day so this is something loo xam ne tam moom xam na everything nu moo demee and there shouldn't be an issue. Euh, finally lan mooy message bi pour Real di Banjul fans yi. ñu ngi apologize to the fans because this is something loo xam ne is beyond our control. ñu yàlla pour in the middle of the season or towards the middle of the season coach bi di bàyyi gis nañ some fans ñu ngi comment on social media they are disappointed gis nañ some fans ñu ngi comment they don't like the position of the club which I don't like either but yëpp mbir yàlla la and sometimes things happen for things happen for a reason understand things happen for a reason so ñu muñal ñu and we hope that within the next two three weeks ñu ngi ñëw into the break pour first round bi su first round bi jeexee then we will really adjust well to try and get a very respectable position towards the end of the season. Uh, thank you, very much. Mike. All right, uh, thank uh, nañ ko uh, kàddu yu bàyyeekoo si Mr. Willie Abraham waaye na ne fekk ko fi major mu ngi resign on Sunday after seen game against Gamtel la resign mu ngi ko fekk nag in England jamono bi Moussa Ndiaye nekkoon fa ay coach moom nag moo jël team bi as interim ba season bi jeex. mu euh, dafa style ne ñoom de style ne comme kàddu bi ñoo ko déggee c' was a shocking news to them. a shocking news that life comme ni ko waxee life have to continue because of amul dara ak Major because they have a very good rapport mu ne ko woon even technical team bi moo ko set up moo si fa bàyyi isi fa ah, Fodé so still now life have to go go go on boo xam ne dix ans mu ngi ko fekk Angleterre loolu xam nga because of man déebu gars yi doon play sax mu ko mu ngi ko mu ngi ko so life have to go but I believe something something went wrong donc maa du jékki-jékki rek. la mu la si wax mi ne ñu doon try pour restore euh, bi but at the moom mu ne décision am dafaa bàyyi dafaa bàyyi. ok so best best known to him but something went wrong but team bi daal am na lu fa nekk. waaw am fa nekk am. loolu loolu loolu is fix ni ko doo jékki-jékki rek nga ne dama bàyyi noonu. ok parce que lu la rëbbee bariwul. only five points. Yeah. Those who win a better game, nga draw better. Ah, te ñaari game mo def. So who knows? Mm. Mun naa win sa ñaari games it. Who knows? Nga dem force force a for the past three years ñu ñoom la win league bon dégg ko si waxam bi sax ne three game in a row to four game. Mourinho score. Mourinho score mm. and mm. nekk na sa new coach bi nekk na coach ko tam moo play nekk na a li tamit bu ko sof et ñu gars bu ko sof setup bu fa fekka et ñu setup la ba ay team su bëggee liggéey na déglu Baye Omar Samba mu déglu tamit Fodé bi ko ñooñu ñoo ko a yàgg si team bi tamit player yee la woon mos naa ko jigéen ba ngay win ten mm. trophy mm. waaw ten ten mm. trophy woon bokk na si setup bi woon so léegi you to try and coach with any player mu wax ak gars maa doon dem na life have to go a alright alright uh, thank you very much dinañ gërëm Kampo bu baax a baax um, si ñëw fii si bant Bantaba waxtaan ak moom bu baax a baax si lépp lu nga xam ne rek Euh, si wàllum lii di football la euh, fii si biir lii dema réew mi comme ma ko waxee rek euh, Star TV dinañ gën a focus si local football ba gis ne rek grâce bu nga xam ne jamono bi askan bi mu ngi siy xeex pour gis ne dina jóg dinañ si dimbale dinañ si pile suñu baat bu baax a baax a baax kon nag dinañ gërëm kamp bu baax a baax kamp la moseen bu ñu di kàddu jërëjëf li kat di woon ne euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi watch Star TV ba Bantaba bi naa ngi wax gars yi na ngaa keep TV comme this the beginning like because this the first time fortunately di am di discuss only about our local football loolu is amazing so topp na la maa ngi kontaan tey pour Sia studio bi mm-hmm. ak yow tamit kon so maa ngi woon ne wonderful listeners yi but euh, next uh, week. Next, look, wonderful living in Lagos viewers because you mean listeners, yeah. Okay. because of CTV, couldn't go away. Like, so you have mm, mm. viewers, like, but next week, inshallah, keep on uh, supporting always TV. Euh, kon nag jërëjëf euh, dina ñëw si ama next ama part bi euh, mooy rek waxtaan ak lu nga xam ne rek mooy ama pétrogaz si doole walama fédération euh, waalidaan tamit ñu gis rek ne euh, Ibrahima Soxna jox leen ay jaasi dinañ waxtaan tamit rek lu nga xam ne si kanam dinañ si ñëw yi mooy euh, Gambia dañ leen disqualified si seen appel bu nga xam ne moom lañ doon appel seen diggante ak ñi di Togo Euh, appel comité bi nag jamono bi euh, daaxalu nañ ko euh, waaye nag ñu ngi doon try pour am cadre yu nga xam ne dina bàyyi ko si Gambia football ama fédération seen ama président bi waaye nag wax nañu ñoom toogaguñ pour waxtaan mbir mi jamono xam ne ñoom jot nañ news bi bàyyi ko foofu si biir lii di ama kaaf Euh, loolu nekk na lu nga xam ne dinañ ko cambaxal fii ak suma pondik bi kii di Bacha euh, su boobaa nag ne su nes programme bi dinañ am euh, lu nga xam ne rek moom lañ war a jële si Gambia Football Federation si cadre yi nga xam ne ñoom it dinañ ko jël si taaxalu seen appel bi football foofu si biir lii dem ak kaaf lu ñu def rek mooy dinañ gërëm Bacha bu baax a baax a baax a baax si teewaayam fii si Star bacca ñu nuyuwaat la bu baax a baax fii si Star TV Sport Bantaba. waaw Mbaye ko delluwaat suñu jaay bu baax a baax a baax di santaat comme noo fi ñëwee waat nii rek di feesaat suma suñ technicien su baax yi. ñu mm-hmm, mm-hmm, yaa ngi mm-hmm. génn mu rafet bi newoon na trop moo toogee fële di ko giw sax mu ngi baax woon ba. ok so ñu demaat si programme bu baax a baax a baax. alright jërëjëf Bacha lu ñu def rek mooy dinañ dem xool yi lu xewoon Banjul euh, gis Petrogas. Euh, bokka si football euh, mu nekk lu nga xam ni rek compagnie yëpp war nañu euh, waaye ñoom nag dañ dem si beneen boor bi mooy female football ñu kontaan si bu baax a baax ndig ñaari mbir fa mu dem ko gis nañ Gambie last year si ñu bu baax si wàllum ligi female football am nañ ay ligue bu nga xam ne ligue female football am na réew yu bëri ñu nga xam ne ñoo ëpp a Gambie si ranking bi waaye mënuñoo am female football league si seen réew soo su fekkee ne Gambie réew mu ndaw lu nga xam ne nag ni xamuñ leen bu baax baax si wàllum football ñu mun a amee female football league naa ne kontaan bu baax a baax Petrogas ñoo nag bokka si eh, yaa ngi woon nag si présentation bi nga xam ne moo xewoon eh, foofu si ma seen headquarter bi foofu si biir di Banjul eh, lu ñu mën a jàngat si Petrogas ñoo bokka si football yi jigéen dooleel ñi di Gambia Football Federation mais dafa yokk a dooleel soo xoolee Petrogas ñoom ñooy woon sel mhm. te sel ñoom ñu daan sponsor lower basic bi primary school lañ rawee so dañ demoon boo xam ne gars yi woon waaye affaire di nga gis si diggante bi gars yi ñëw woo tam dañoo santaan Moussa Mendy rek eh, eh, ministre of education coordinateur bi si Boko Haram because bu ñëwee dafa joxaat gars yi leneen ñii ak ñi ñoo daan sponsor ligue bi so dafa sant yàlla rek ne gars yi ñëw nañ jokkat doole dimbale because GFF rek mënu ñu def yëpp parce que soo embarqué nañ ne si projet bi projet bi six months la war a dem and six months ñu doon ñu leen mën a dimbale so dem nañ ba gis ne prérogation ñoo pour dimbale leen so di ñaaxaat comme ni ko di ñaaxaat pour ñu amaat ñeneen ñeneen ñeneen ñoo ne ñoo ñu dugal si biir football bi si boppam bi ko affaire GFF la football la ngay responsable si dëkk bi fii. ba pare beneen bi rek mooy comme nu ko yoree ñu ngi dem si beneen boor comme jigéen ñi nga xam ne ñu ngi leen ignoré xëy na amuñ ndimbal bu baax soo ñoom ñu ngi ñoo doole si jigéen ñi soo lii beneen santaleen la ba pare gërëm la ba pare wax ñu ba ñu yokka xam nga ba pare di wax tamit comme female eh, football committee bi. moo ñoom Monica ak ñoom. Euh, seen si ñu sant ba pare gën a pare ginnaaw ut fonds rek. pour mm-hmm. loolu because although door na ko so di rest man maa koo jàkkale in Banjul so moom dafa am projet projet pour six months sax so first two three weeks daf ko dooree Banjul. so yeneen mois si des yëpp man maa ko war a jàkkale waat foofu noonu waaye within school system. school system bi la moo dem laa dem waaw so beneen bi de beneen bi see nekkaat rek mooy nu ñu demalee comme this is for GFF so beneen mooy am na. beneen bi ngay defaat comme démba jeefe turu dat fon si ñëw noonu soo dañ defaat turu loolu ñu mayaa sukóor si bool sëy na boobu ñëwuloo woon mhm. yaa yaa ngi ma baa ngi wax si loolu lañ ko programme lañ soo joxaat nañ bool si sukóor si olde yi na bariwul waaye joxaat nañ leen bool pour ñu dooraat foofu from KM la ba from Banjul la ba West so West Coast waaw soo jox school si yëpp waaye day choose eight schools from because xam nga bi start with eight schools so sin sate baño ɓe eschool so dasmen suñu dem ke fa dara wat eschool eschool project ɓe li aga sa capandaw li seet naka la ñoo defee waat so sant yàlla daal ne jeefe feñ na ñu ngi dugaat si yu bari yoo xam ne yu mu ne démarche comme ni nga ko waxee comme pétrogas ñu ñëwee ba jàppa si waat nii so ñu ngi believe ne xëy na ñeneen ñeneen ñeneen war nañoo dogaat seen doa si soom ñu ñëw because ñi fee business bari ne waaye ndax ñiy dimbale tam bari ne ok so alright alright jërëjëf thank you very much lu ñu def rek mooy dinañ dem euh, xool yi euh, Petrogas euh, présentation bu nga xam ne moo xewoon seen headquarter bi dinañ dem déglu kàddu yi nga xam ne mu bàyyeekoo si GFF président bi kii di ministre la gas ñoom nag nekk nañ ñu nga xam ne nag am nañ nangutoo ak ñi di Gambia football ama fédération pour rek dooleel lii di football yi jigéen fii si biir lii di ma réew mi jamono bu nga xam ne nag nangutoo bu nag xewoon na seen head office bi foofu sa ma Banjul Euh, jamono bu amee xam ne nag gis nañ Gambia Football Federation bi kii di Mr Lamine Kaba Bajo ak lii di ama ak kii di Mr Lang ama Conte di ama general euh, managing director bi euh, foofu sa Petrogas Euh, si nanguto bu nga xam ne nag am nañ ko pour rek gis ne euh, football yi jigéen nekk na lu nga xam ne nag dinañ ko dooleel si biir lii di réew mi euh, si biir nanguto bi nag gis nañ nag si si chèque bu nga xam ne nag gis nañ Petrogas ak Gambia Football Federation nag signé nañ ko si one hundred eighty thousand jërëjëf Bacha gis nañu nga xam xew na six months partnership la for the meantime thirty thousand per month six months la nekk one hundred and eighty loolu la Petrogas dugal si football yi jigéen gis nañ nag ne Lamin Kaba Baja na ne Euh, dinañ ñëw full time waaye nag ni si fi muy football la mu nekk. foofu la weesoo moo tax ma ñu ngi ñëwaat si beneen boor bi ne comme ñoo dimbalee female football comme nga ñu bëri dañ duñ dee follow lu bëri. waaye it's ne prérogatives ñu ñëwee nii. yaa jëye one eighty waaw one eighty for six months. su fekkee kenn tamit ñëw na euh, jëye benn one eighty for six months. dafa dimbale. so mm. moo tax mu laa ne mu ngay ñaaxaat gars yi tamit foo tam day ñaaxaat ne leen ne pour mun nañoo ñëw si. female league bi. ok soo ñëwee si female league bi tam soo amee sponsor si female league bi dafaa a mm. mm. soo ñu ngi koy wékkoon and it's ne ñoom mun nañoo bi directeur bi di ma bàyyi waaw ma bàyyi li mu wax rek technical directeur bi ne ko su projet bi successful daal. ok it ñëwaat moo si. beneen boor bi xam nga boobu is dem because Monica door na dem na day bi boo day after independence bi dem na provinces si provinces waaye pour five days mm, mm, mm. boobu koos laa nekka soo moom su ñëwatee dafa proceed to KM comme li mu door Banjul soo su proceedee to KM soo man laa bàyyi Banjul ma continuer Banjul bi ak some teachers because we work with the teachers pare ministre bi tam foofu tam ma fàtte ministre bi sax moom war nañ koo gërëm sant ko bi ko xam nga demoon nañ fa war nañ moom moom saay na moom si ma xam sax moo ñu assoné moom dina make sure ne mm-hmm. mi ngi na di follow up ne schools yëpp ñu ngi participer ci loolu. ci school football. ci biir football football football tournament bu ñu am noonu. ay yooyu ne moom jël na li li boobu noonu si boppam. bay sant la daal ak yéen because fédéral su ñëwee daal nañ leen ñëwaat rek because suy pousse rek muy dem because ñoom mënu ko ñëwee ba ñëwaat kii yëpp. ok next dañ na next week laa nekka. kon nag mu ne next week su ñëwee dafa monitor Banjul na Banjul mu ngi demee. ok mu ngi xam nga tubaab la. tubaab dañ gàdda seen ñëpp jox leen ba ma yéen ay ok tur yooyu lay màggee yéen ay ba pare bi nga am nii yëpp mooy am nga training su watam neexul ba pare ñi ay students say amul soo ko dee mun a jënda. ok di ko jox gars yi xam nga comme sort of biscuit banana. waaw pour gën a motiver gars yi ok xale yi ñëw ok ok. fonds yëpp pour yooyu la ak yu moo moo demee am ñëwee ok ok ak yi moo tax gars yi def ko ay dañuy taati taaw every month. ok ak processus si am yëpp. yëpp yëpp waaye dañu sant bépp wis di bes euh, euh, loolu mooy xewoon foofu sa Petrogas comme noo ko waxee rek euh, Star yi lépp lu nga xam ne rek mooy xew fii si biir lii dema réew mi si wàllum football léegi nag li ñuy def mooy dinañ dem xooli first division team ñi di Wallidan football club. Euh, Walidane football club ñoom ñoo nekk ñu nga xam ne nag seen former player mooy li ama Ibrahima Soxna euh, kooreen li muy play si national ama team bi euh, moom nag moo nekkoon ku nga xam ne demoon na gestu team bu nga xam ne fa la doon play li di football am mooy Walidane football club ba tara nag gis nañ Ibrahima Soxna nag joxe na fa set of jersey five balls ak bips si training ground foofu si biir li di GTTI Mr Bacha balaa ñu xool yi ama rek ñu xool Ibrahima Euh, mu dellu si waat euh, ak clubam bi this time around mooy Walidaan jox leen a set of jersey euh, jox leen five balls ba pare jox leen twenty thousand dollars ne leen match bonus for two games eight games soo ne ko winee is ten thousand yéen a ko moom players foog naa ne mu ngi def kootaam ndig ne gis na ne fala la jaaroon te jot na pour mu dem delloo njukkal club bi xëj na mënut a jël lépp si bi def waaye tamit you know muy contribute si lu mu sant ak gërëm ko moom tamit li mooy li ñu war last time rek seetaan yaa ngi topp yenn yu moo yu moo def witin si dëkk bi. mooy li ñu wax de am na yenn yu bari yoo xam ne du dee nit pour nga nu bokk. waaw du dee nit pour nga feeñal ko. so ba léegi mu ngi continuer loolu parce que tiimam la woon. Mm-hmm. pëlee fa. xam nga yàlla na ko génn na ñëw na ba pare mun naa dimbali ba pare mun fa ko dimbali so duñ because team soo ko mayee tennis may ko bés rek dimbali ko. an pëlee woon na fa woon na gars yi ne man still maa ngi si team bi still maa ngi bokk si team bi. après mu ñëwaat teg si ne. 20000 nga leen da nga koo def. ok dañ ko santaat daal di ko gërëm because ah. di ñaaxaat ñeneen ñi nga xam ne ñu mm, def di seen di seen. dimbali xale yi. waaw because soo ko defee rek xale yi nga dimbale because man su ma ñëwee tey may la one million may naa la one million waaye su ma ñëwee may team bi matériel su bëri comme boose boose ñu bëri use ñii dañ dem ñii ñëw mm. ba pare mm. am na tam ñoo xam ne ñu ngi la bi team team ñoo xam ne ñu na bokkoon si team bi dañoo use boose yooyu noonu yëpp vest vest biib si yooyu lañ ko yooyu na plain verse la gars yi du use plain jazz yi la gars yi du use rek waaye bips yooyu yëpp ñun ñëpp dañu si dee bokkaale soo dañ laa ñaanal di ko di ko ñaanal rek si jàmm rek yàlla yokk wërsagam bi rek jërëjëf Bacha euh, lu ñu def rek mooy nañ dem xooli élément boobu euh, xewoon foofu sa GTTI seen training am grand bi mooy Ibrahima Soxna euh, si président bu nga xam ne rek defoon na ko tamit sa TV te demoon nañ euh, pour convoquer ko euh, gis lu nga xam ne moom mooy xew euh, si suñ football bi fii si biir lii dama réew mi kon nag ñu seetaan présentation boobu suñ ñëwee nag dinañ waxtaani club président bi mooy kii di Mr Alieu Ceesay once again ñu dellu si waat fii si Walidaan training ground bi jamono bu nga xam ne nag seen former player Ibrahima Soxna Gambian international player moom nag moo nekk ku nga xam ne tey dina joxe ay présentation of jaasi pour rek contribuer kootaam si club bu nga xam ne jaar na fa play na fa lii di football am feeñee na fa si international carré am Euh, te nag loolu nekka lu nga xam ne nag dinañ ko ñëw euh, fii ak Star TV Sport Bantaba ñu waxtaan ak seen media officer bi kii di Michael euh, dina nekka ku nga xam ne. waaw jërëjëf May thank you very much waaw ñëpp xam nañ ne tey moom like it is just a short presentation mooy for our former player uh, Ibrahima Sona waaw moom dellusi na daal pour joxe njukkal waaw gis nañ play na fii mooy win na trophies yu bëri ah from fii la jógee play under 17 play under 20. ba yàlla def ñu oko ko à sino national team bi yow tey yëpp daal mooy ñëwaat na daal di pour delloo ñu di njukkal waaw pour dellu si club bi njukal kontaan nañ trop ñëw na daal waa teral nañ ko waaw soo léegi moom la buñ déggee ñuus bi mooy club yëpp happy na gis nañ players si sax kontaan nañ parce que gis nañ ne mooy ñu jaaroon fii gars yi ñëwaat nañ waa di a delloo back to the club parce que club bi at at nu mu di mel a def nañ dara si gars yi ba gars yi tey ñu toll fu gars yi am waaw di daa contaan nañ euh, trop si loolu noonu daal. Euh, Ibrahima Soxna nag suñ ko déggee euh, jaar na si club bi mooy waale euh, Walidaan football ama club win na fi ay trophy jaar na fi dem si international ama kaarayam te nag moom moo delloo lii di njukalam pour rek dellu si waat fii si club bi waxale yi gàcce ngaaraama si liggéey bu rafet bu ñu def bente tamit rek hand over lii di ama jaas yi bu nga xam ne nag ne gis nañ rafet na lool te mandaranga lii di Walidaan moo fa nekk te nag nañ waxtaan ak Ibrahima Soxna Ibrahima Soxna ñu gis tey nga ñëw fii si Walidaan seen training ground bi sax wante ndaw yi balaa nga joxe présentation bi Euh, jamono bi euh, bëggoon nañu xam lana waral ñu gis euh, Ibrahima Sona dellu si waat fii si Walidane football club jox leen ay jaasis. well um, first of all ma war a wan like thanks pour management bi ñoom Aliou Bey moom since bu mu jëlee over like def na a lot I mean not only funding but like. they contact players yoo xam ne jaar nañ through Walidane ak ñoo xam ne like supporters lañ ak yooyu you know so loolu rek xam nga doy na xam nga loolu rek dafa tas sax like loo bëggut def sax di nga ko def to be honest and um, lii dafa war a continuer nu ma nu ma waxtaan naa moom and gis naa ne lii dina dina dina passé daan dina demaat back or even more than Walidaan nuñ meloon before and di happy naa si torop ñu gis ne euh, tey nga ñëw nag saafonte ndaw yi euh, xëj na dinañ ne nekku si team bi fil bi nga doon train yi euh, waaye tey lu mu la mun a jox nga ñëw gisaat Walidaan players yi nga dugg seen biir di waxtaan ak gars yi lan la mun a jox ndaw yi tey well um, man suma time sax bu ma bu ma nekkoon Wally daan maa ngi yong su yeneen like top players yi ñëw ñu jaar Wally daan is something pour xam nga just nuyu nuyu gars rek so loolu loolu is something so xam naa ñoom tam the same la ñoo feel right now and gis naa ko si gars yi like ñu ngi happy ak yooyu so man pour man xam naa lii laay mun a lii laay mun a def pour xam nga yokka si yokkale like motivate ne xam na dinañ ko make incha allah su gars yi continuer di work hard la mooy message bi pour players si ak boot bi si boppam. well um, boot bi moom comme lu things di demee nii nañ nañ si continuer and um, su soobee yàlla ñoom seen seen seen seen target dinañ dinañ fa ak yo eh, players yi moom lu may wax gars yi mu nekk like dañ am pour yokka extra even dañoo train fii sax like suñ mënee trainal seen bopp extra ak den xam nga noppale ko bi tam def si important ak yooyu ak bi pare ñu ñuy performal team because the more team bi di def good the uh, the easier pour ñoom ñu mun a market seen bopp. Euh, jamono bi ban message ngay jox foo euh, players nga xam ne outside euh, ñu ngi play international football te nag dañ jaaroon si club si ñu gis yow nga ñëw dellusiwaat ak ñi di Walidane lan mooy message bi pour yi tamit pour rek ñu gis ne war na ñu mën a fàttaliku ndaw yi si gannaaw. well comme nu ma ko waxee rek gis nga yeneen yi like yow play bi yow sa bopp na ko war a xam wante tam ak ñuy mën a team bi tam nu ñoo nu ñoo xam nga nu nuñ la approché ak nu ñoo dem won la ne yëg nañ la loolu la fa very important pour ne yëg nañ la. loolu la um, new management bi nekk di def so xam naa ñeneen itam si soobee yàlla dinañu uh, seetal even like the young young player boo xam ne Omar Colley you know and I was so happy to be honest like pour loolu I have to say it you know like jóg jox xale yi bonus like you know and even su nekkee lu ndaw la but it mean a lot to these players and even man boo xam ne sax like maa ngi toogoon kër ma gis ko it was like wow and lu may wax rek mu continuer loolu ak keneen ak keneen koo xam ne like mun ngaa support nga ñëw nga support lii lii la lii lii moo war a am you know si football ku def nga happy and soo mënee yokka nga yokka you know so and lii dina dina motivate xale yi more and more and more. jërëjëf Ibrahima. yeah thanks a lot yeah. right uh, suñu bàyyi ko si Ibrahima fu ma play bi dinañ waxtaan ak club président bi uh, kii di ama club président bi uh, Mr Aliou gis nañ Walidaan nekkoon club bu nga xam ne bu ñu relegate métti woon na lool ak club bi waaye this time around nag gis nañ ne. Euh, gis nañ ne nag euh, bu Aliou ñëwee jël team bi euh, gis nañ lot of changes lu nga xam ne xew na si Walidaan in general lot of change lot of changes am na tamit si GFF division league force division bi competition bi métti na trop lépp a ngi dox jamono bi Mr Aliou tey nag ñu ñëwoon fii gis seen former player ku nga xam ne try nga pour manage be mun a amaat sa all players yu nga xam ne jaaroon nañ fi nga nekkoon si club bi di support tey nag nga nekk président gis players yooyu waxtaan ak gars ñëwaat back to the club tey loo ñu mën a wax si loolu. waaw jërëjëf maa nga wax jërëjëf ah, li ngeen ñëw ngeen kovali li ñu am nii lu rëy la um, he is one of the players yoo xam ne not only Wally daan but defal nañ lu bëri Gambia um, gis nañ li ñoo def as gratis li moo dimbale dëkk bi not only fii um, daara yi gis naa li moo def yëpp but suñ amee lii ñun den kontaan ah, Wally daan as ñu waree wax rek du du tiimi benn nit ah, football is not only 11 nit ay play that's the 12 people mooy fans yi administration bi ak ñëpp te kenn nit rek mënut a doxal football so suñ demee ba gis ñoom Soxna ñoom Omar Koli ñoom alfa ñoom amadu ñi ñëpp professional players yoo xam ne aw nañ si team bi ñëwaat gestuwaat ne ñoom fii lañ aw dañ bëgg a dimbale loolu dañ ko war a xajaanee because ñoom nekkoon nañ fi am na ku leen dimbale ba gars yi tey nekk fuñ nekk so ñu ñëwaat rek nekk ak boy si gis leen it's a big motivation ba pare def nañ this is the highest you've seen in in in in in in Gambian football as players. comme ñu ma la wax soo suñ ñëwee bay waxandoo yi ñu fi am léegi c'est extra motivation te football rek motivation la ante ñun ñu nga wax man bi ma ñëwee in my generation mbooleem mboolem daan fan mbooleem wali daan player mboolem ex player ñëpp dañ war a ñëwaat ñu jàppale soo demee si àdduna si yëpp di nga gis alumni yëpp ex player si vétérans si yëpp from biri biri ba génération bi ñoo am ba mu ndaw bu mujjee dem man si suma génération li ñoo wax rek mooy ñun ñëpp dañu war a nekk together team bi mun a dem kanam te gis naa jàppale bi as I always say man maay face bi waaye ñu nekk suma gannaaw ñoom ñoo ma ëpp a doole ñoo ma gën a xam football ñoo ma gën a pare si pour wàlle daan dellu fu mu dee waaw. well mun nañu wane ne lii amutoon euh, jamono ñëwuloo because métti woon na lool amoon ngeen players yi Ibrahima Sona waaye gisuñu woon euh, ñoom Omar Colley ñu chip in euh, noo mën a def ba indiwaat this generation player back to the club as club president. waaw soo déggee wàlle daan tey dafa generation bi taxut ñii defaguñ dara ñii seen generation comme lu ma waxee from 1969 tey generation yu ñoo ñoo tout te lu la wax bëri na ñoom jatu from ñoo ñëpp dañu daan may ves so loolu dafa war a dem ba nga xam ne ñun dañ ko war a isiwaat so when I came in li ma njëkk a def mooy reach out ñëpp bëgguma kenn toog ne ñun boole wuñ te ñu ma mënta gis sax ñu ma xamut suñ seetaanee interview maa ngi reach out ñëw leen si training ground bi fii lañ nekka oo call leen ñu bu kenn xaar sax ne ñu ngi laa xaar because football as I said is a community thing te richard bi mooy man ñi ma immediately xam personnel yi ñooñu laa dem ma utiwaat leen te ñoom tam dama leen di wax ne ñi ngeen xam dem leen isi leen and we are seeing that you know and kontaan nañ si loolu and the rapid success bu ñu am people are thinking ne dafa gaaw but am na liggéey bu bari bu si nekka waaw liggéey bi nit ñi duñ ko mën a gis waa is on the ground euh, jërëjëf monsieur président waaw jërëjëf euh, jërëjëf soxna once more and jërëjëf ñu donné yëpp mboolem ex players players fans ak ak ak supporters ñëpp jërëjëf and thank you we appreciate it. Thank man like Numa started when it was dem marché jaayal suma yaay toog man ngi laa wax jaay fist pipe mid pipe jógee foofu dem school su may dem school sax dama koo dugal suma baag break may dem di jaay and still maa ngi ñëw di train and through loolu yëpp ma ñëw make ko so da ngaa gis ku nekk mun na ko mais but through sa sa yow sa own own way noo ko bugg a defee mooy lan na nga bugg a achieve dara na nga bugg a make na ko bugg a make si football an loolu mooy ngay performal sa team ngay work hard work fii ba pare ngay wokal sa boppa extra meaning la ñun amoon na time mën a tijaan jeete dañ doon dem di daw guddi yaa wana san lu ma min ba true yëpp ak sa contrôle doo fatigue sa boppa wante dafa am time ba mais amun training for three days four days ni ngi dee dem dawee guddi and xam nga campé bi is toog di campé toog di campé it's nice toog ak booy wante dafa am time boo xam ne kenn warul la ko jógal rek nga dem training ak yooyu soo man lu ma leen a wax rek moo nekk like dara bu even su méttee sax amuloo looy ndewee sax nam laa wax exemple amuloo looy ndewee sax yee nga ne ko bëgg a meeg da nga war a dem di train ak respect respect dafa important nag mooy kula kii kula train mooy it's like your your dad ñun time boobu noonu lañ noonu lañ ñëwee woon because so leen déggalee ñoom Pape ñoom Sénégal understand so leen déggalee gars yi rek it's easy ñu ngi fii di sacrifice pour help leen and help bi so leen si so leen si concentré wul or déglu eh, eh, eh, déggalu leen leen it's hard so man loolu laa leen a ñaan rek because fii ko ñu fi nekk yëpp na ngeen ko bëgg a make nekk professional so please def leen extra and ngeen wàcce seen boppa it's very soo soo nekkee ku leeloo even soo demee ba nekkaloon wàcceel sa boppa nga perform tey si next next game bi mel ni comme defuloo dara nag ngay gis ñeneen ñu ne kii du dee am bad game xam nga lu every game dafa xiif on saluma men every game da nga war a xiif tey soo defee léegi xam nga waal lii eno foot bi da nga war a def lu ëpp loolu on laa am pour xam nga yokka si rek xam nga yokka si eh, pour motiver leen an ngeen continuer su soobee ak ligue bi eh, si table bi fa la nekkee nii ah daf lay nekk boo xam ne daf lay nekk time boo xam ne because jaar naa si xam nga yeneen mun ngaa dem ba ngeen am presso du presso lii mooy di nice feeling yaa ngi si yaa ngi si position boo xam ne mun ngaa win league bi so loolu mooy lan every game da nga am pour win wa in ne nga nga nga concentrate nekkul lay la ngaa ñëw fufu the game plan bu leen coach bi jox ak ngeen work hard mais game bu nekk game bii duñ ko lose every game doo leen ko lose together kii su defee mistake dafa am wéy da ngaa mun a yuuxu wante dafa am wéy boo ko ko boo looy looy joxe message bi nga xam ne da koo puus kenn bu leen nekk ennemi soo soo leen try because gis naa ne yéen a ñu ngi isi loo xam ne like ne ngeen di nekk family loolu ñàkk ko si Gambian football léegi nekk family loo xam ne yow sooy play man am laa an maa ngi xaar ba man ma am suma chance ma ne yow doo playaat so loolu laa am pour yokka rek den soobee yàlla dina baax to thank um, Ibrahima, like um, Limwa. I think um, I always tell you this, I mean, it's good mu jaaroon fii I the experience bi mu am ñëw di ko share ak yéen waat at least dina dëgëral like comme ñun I mean liñ liñ leen a wax man maa technical team bi right every day li lañ leen a li lañ a wax you want to achieve something you got to sacrifice and um, te yëpp pour ñan la pour yéen I mean when he started nii la starté woon comme nii ni ñoo waxee yéen nii fii la nekkoon taxaw di wax I mean li mu achieve tey I mean fan la famille am force then after mu ñëw xalaat ne ok team bi right but I mean right now he feels good like lu moo wax nii alhamdulilah fan la ko jëlee si tànkaam yi fan la ko jëlee sacrifice bu mu doon def fan la ko jëlee advice bi ñu ko doon wax the discipline soo ko amutee rek doo mun a achieve am li nga bëgg in life you know and again Um, a um, nit koo xam ne um, dafa am sutura nit ku am sutura nit ku uh, mun a dimbale but si ron lépp lu mu def as a person du bugg pour mu dee génn right but sometimes dañ ko dee wax ne even sooy saraxe ñu ne nit ñi waruñoo xam lan nga war a sayra something like that but léegi-léeg it's good pour ñu xam ne yaa ngee def lii pour keneen mun a xam ne ki la ngay dimbalee fii mu dimbalee saay bi fële na le mu ngi promise loo xam ne dafa bëggoon pour keep ko secret man between man maa moom ak presse yi but I cannot keep it I cannot tell you <laughs> next two games mu ne suñ last two games yii nii each game bu ñu win ten thousand dollars mu ngi tegu so I'm not gonna keep it so you win two games you got twenty thousand dollars for the next two games. All right. So whole thing. All right. So léegi mu ngi fa su ñëw suñ next game the money will be there suñ communauté take the money back so daf leen ko tegal pour suñ winee so it's up to you du du so so that is it so like I said li président wax bëgg leen fay keep long I mean you getting cold and so so ñu um, gërëm Sona thank you very much Sona. for for this um, kind gesture. Like what President said, I mean, least, I mean, means a million dollars to euh, loolu kàddu yi nga xam ne rek euh, bàyyi ko na si Ibrahima Sona euh, gis nañ tamit président bi mooy kii di mister Aliou Cissé si kàddu yi nga xam ne moom it gaaral na ko foofu noonu ko bi tamit dégg nañ kàddoom mi muy Fodé Ba nekk na lu nga xam ne rek rafetlu nañ ko bu baax a baax si seen club bi amaat seen. best player mooy Ibrahima Sona ñëwaat wanelewaat loyalty back to the club euh, yàgg na fa la doon play euh, all this euh, yi moom ak ñoom moom ak ñoom tubaabu la woon you know Ous so yàgg na daal waaye fiir na ne it's high time mu delluwaat si club jox leen lu mu leen war a jox te dem Aliou dinañ ko gërëma ah. waaw Aliou Aliou Aliou Aliou euh, pousse na lu bëri si Wally Dann dig maa ngi remember time nga xam ne benn substitut la Wally Dann doo am so métti na trop ak Wally Dann waaw mën nga mooy président bi ba nga laa suñu la ba Aliou bee ñëwee ba léegi bi dafa gën a ajosu mm-hmm. xam nga yooyee tamit daf di fekk na ko si téewum ñoom dëgg mooy yaa ngi wax ne ngeen ñoom Fodé ba wax ne ñoom mm-hmm. so Fodé ba ah, alaaji booy ñoom ñu si téewum ba mu nga nga ñëw demal fa naxar sa dawuñ eh, non non non te Fodé mën na dem waaye ñu ko toppoon dañ bari waaye demutoon waaye comme ni nga ko waxee rek comme Aliou Bey si boppam daf fa yokk doole ñëw yokk safara gis ne walla ni la daan doxee mu ñëw nit ku am fit rek oo nit ku ñemeñ rek moo dee mën a def yooyu noonu nga ñëw si team rek immédiat rek start di li nga war a pom Boston team bi noonu la meloon at the same time bi éeg bi léegi mu ngi xosul pour seen naka la amee force moom wooru wu ne dafa éeg léegi de moom daal li mu gis rek mooy team bi team bu mag la si dëkk bi soo ñoom am na position yooyu seen position so dañoo dee ko am mooy case yi di real issue bi rek anga real waldaan ñoo amee woon mm. coow lee yëpp mm. mm. a ngi try pour delluwaat foofu mooy rek di santa comme Ibou Sola comme ni nga ko waxee nii eh, team soo si nekkoon ba yàlla dara ak nu métti métti métti si team boobu nga jógee dem dellu laataan dellu laataan soo soo naa may benn bool sa benn bib sa garaaw waaye dellu leen nit ñi dañ laa ñaar nit ñi si biir dañ laa ñaar bi ko dañoo xam ne foofu nga jógee woon waaye na yàlla may la ko nga dëgg la yow la ko yàlla may yow am nga ko yu sax sa njaboot yi waaye si biir njaboot bi team bi daf si bokka because team bi si part of si famille bi la bokka booy because mën si famille bi team loolu bi soo soo bilifee ne xëy na yow famille bi si parents la ak raka yee mag yooyu noonu mhm. dafa room bi ko sof si lii si si si xaalis si loolu nga dundee ba toll fi nga toll nii ba still moom ngaa dundee parce que su loolu ngaa amee soo de pay baa fi nga jógee team bi ak communauté bi nga defal daf la dee dimbale. so Ibu Ibu Sana man dama gis ne yooyu fu mu nekk nii mu ngi koo mu ngi koo def bu baax a baax a baax nga mu ngi ko doon def mu ngi nëbbu woon waaye Touch to Star TV Star TV mooy li ma la ne National na ko mën a def waaye defu ko soo Star TV ñu ngi koo def waaye nañ téye foofu rek ne suñ téye foofu rek yëpp dina feeñ xam nga parce yëpp yu baax la. yii yëpp nit ñi lañ la war a ñaanal because nga defal dëkk yooyu ñëwaat benn defalal sa team fa nga jógee ne man fii laa jógee loolu sant yàlla bu baax la soo lu ñu defee di ñaanal Ibou Sona rek ne ko dafa dafa téye yoon bu baax la. ok nga delluwaat di dimbale ak bi nga bi nga ko mujjee laaj comme ñi nga xam ne ñu ngi jógee si yeneen daa nga waxu la ko waa laaj da ko ñu ngi si yeneen team si. ok la ngeen a wax pour seen team si suñ ñëwee la lañ mën a defal it's the same rek mooy ma ne suy feeñ rek. Mhm. suy feeñ ñii rek. nit ñi nañ start di ko def parce que su yàlla defee ba Star TV door muy muy génn mhm. comme yaa ngi koo def ni mu ngi génn comme direct mu noonu ko def direct waaye ne bëgguloo ko def direct léegi waaye playback bi su ko gars yi di setaan rek ñoo xam ne lii moo war a am loolu muy njëriñu TV waaye yaa ngi am international TV rek téye ko fa rek dankas dankasalo yi taxaw compétition amutoon waaye léegi sant yàlla yi na président Barrow ñëw na compétition léegi am na xam su ma nee président Barrow du politique ok damaa wax ne because of competition mu yaa am because TV yaa ngi ñëw. ñu bëgg ñëw ak fi nga mm-hmm. téye mm-hmm. mooy moo local. xam nga nit ki def lu baax nga ko wane rek loolu sant yàlla bu mag a mag a mag a mag soo ñu def nii yëpp nga koo génnee nii oo team bi fu ñoo def nga koo génnee nii ñun ñun la ñoo sant rek. because ñu lañ am pour mun a sant dëgg la ñu la ñoo def mais ba yooyu ba nga ko waaye yéen a def génnee bi image bi su génnee. si la nit ñi dee góom loolu soo ñun ñu la ñoo sant Star TV la ñoo ak seen technicien si nga xam ne sonn ak yow journaliste bi nga xam ne yaay waral sa boppam indi gars yi édital la préparé la ko génne sant si boppam ñoom sax ak lu ñu defal defal seen team sax lu ñu defal defal seen ñoom tamit ñu war a fay yow la war a delloo ñoom njukkal si yow sa boppam dañ ne yow doo nekk ay na géwéli TV bi waaye su fekkoon yeneen TV bi ñu la yoo xam ne nekkul ci dëkk bi daaf laa oo ne ñëpp ñu ngi sama mbayaan da mooy sama mbayaan <laughs> waaye yoo koy defaloo ko. dina génn a dugal waaw ñun war nañ koo mën a wax suñu mm. mën a wax ne yow sax si boppam sax dañ la war di pay baax léegi léegi yéen ay du bàyyi force nag pour yow sa liggéey la yow loolu la wax rek mooy sa liggéey la surtout sa liggéey la waaye yooyu yëpp yaa ngi ko génne ko si yëpp suñu génnee ñu si la dara xam ne ah, ah du sànq def na nangam kii dee def na mm. nangam ah mm. ñoom Mbacke dañ ko war a def o oh, ñoom Ousmane dañ ko war a def waaye su génn kenn xamul kenn déwut ñu nawuñ si dara dafa mm, mm. dafaa ñaax ñeneen ñi ya gën a naa jax ñeneen ñu ñu gën a ibeeku ne waaw ñu ñu waa def lii ak lii yaa ngi def lii ak lii ak lii ok parce que atam yoon ñu la gars yi dee koolee ne la because mu kool la ne ma mbay ba ne ko non xanaa yow nga koloo ko sa boo jokko jokko sa ne pour mu kool bu ngaa def fii nii moom seetaan na ko xam nga last time ma suma gars yi ma xay seetaan nit ñaa ngi ko nit ñaa ngay gis nit mm, mm. bi ma koy tam mu doon kool yaa waaw war na si téléphone waaye xatoon na trop because gars waroon nañu def sut live event bi pareegul sax mm, yaanjaagut de affaire si yaanjaagut nu mu war a yaanjee waaye things mu ngee euh, euh, comme noonu déggee loolu mooy xewoon si Real de Banjul euh, fu ñëw tëjee nag mooy lu rëy li lu ñëpp yaakaaroon ne Euh, dinañ ko war a mun a am mooy ama appeal bi euh, CAF dañ disqualified Gambia seen appeal bi euh, jamono bi dinañ si def liggéey nag dinañ si def gestu dinañ si waxtaan ak ay technocrates yu bëri ñu mel ni bàcca kojus yu mag yëpp dinañ waxtaan ak ñoom ndig ne ñaari fana la am na ñu ne daal advantage la disadvantage la <laughs> Gambia luus appel boobu noonu moo gën si ñeneen si benn fana bi wax nañ moo gën si Gambia ndig ne su fekkoon ne appel bi dugg na ñu war a def all messages ñu war a def Euh, forfeit all point yu nga xam ne euh, teams yi am nañ ko si kaw Togo mm-hmm. kon Gambia dañu am Gambia mm-hmm. eh, do or die la ñu war def in Algeria mm-hmm. euh, jamono bi nag Algeria qualifié nañ Gambia war am ñi di Algeria lu neex mun na see xew Bacha taraa nañ nag pour Gambia Football Federation démb pour waxtaan nañu balaa ñu on waaye war nañ ñi wuñ comme ndax xam ni ñoom it décision bi waxaguñ ne nangu nañ ko na nangu ko waaye dinañ si def toogaay ñoom it su boobaa dinañ leen mën a dem interview laajte leen waaye nag ne Bacha Euh, jamono bi next month la Gambia Algeria CAF disqualified nañ appeal bi euh, noo si jàngate waaw man li ma jàngale li ma jàngate si appeal bi rek mooy yëpp procédure eh, am nañ step i ñu disqualify ñu amaat step bi mu disqualify ñu waaye because bu ma di bu ma di Gambia Football Federation page bi ñoom ñu ngi naan léegi dañoo consult seen legal officers yi nga xam ne mooy lawyer yi yooyu ñu joxe advices si loolu soo suñu leen joxee advices rek yi gars yi di jël yooyu la gars yi di jël si boppam mhm. waaye moom ku nekk tamit am na ko yaakaar pour mu advice la mhm. ñoom fii lañ ne na lu ñu a def def nañ ko léegi des na si léegi mhm. def na si soo suñ ñëwee rek ñoom nañ ko trowaat si biti because laa mujjee ri seen page bi ak ñun tam foofu la ñoo jëf sukkandiku rek xëy na man fi ma waxaatee beneen bi rek mooy dañ am match against Algeria te nga jëlagum ay appels ak ay. te ko asaay te ko asaay focus Algérie ñu focus si maaji Gambie Algérie bi was dañ ko war a win ñun foog naa win ñi moo ñu kale yu bare bare bare parce que boy léegi-léegi dañ dee bëgg a play si yeneen dëkk yi sax daf day nañ try ñu win nga am team soo xam ne mii dafa dañ leen dee follow ok ñu mel ni ala Algérie bu ñoo ñëw Gambia ñaata challenge ñoo ko doon bëgg ñaata challenge ñu ko génne su yooyu su ñu leen fu nekk ñu ngi amal beneen challenge against Algérie te already xam nañ ne ay qualified nañ. waaw so nañ pour indi seen big players yi. waaw nañ focus rek. waaw yow ñu bàyyi leen gars yi consult seen legal officers yi seen law officers yi. ñu focus si Algérie ñu a saaj players yi. Mm-hmm. saajaat ñan oo ñan ngeen ñan ngeen gis es ak ñan ñan foog si team bi team bi play ay matches léegi benn match a des ñun fu nekk war nañoo mën a am si team bi ne benn match bi des. Bacha mën na ko dinañ si team bi. ok Bacha lan nga lu important. du oo daay game la Gambia su winee qualified automatically loolu xam nañ ko. Hmm. Eh, Steve Tarawale oo ñu ko si team bi woon. Eh, eh, Omar Koli ñëwut. sa Bari nekkul di ñëw. jamono bi lan nga foog ne moo war a am ñetti players yi dañ war a ñëw si force dañ war a passage coach mu indi players yi ndax dañ war a bàyyi coach bi def lu ko neexal. non bii coach bi souvent moom mu ngi follow man à cause lu ma bàyyi xel because démb rek gis naa ko ci si ground bi because moom tam toogul if ñun place yi yaakaar ne sax ñooñu dañ la war a de gaa mu ngi la gaa ngi moom si boppam amaat na fay naa ne yeneen moo place yoo xam ne ñu ngi play si within that ring si box yoo xam ne xam na gisuñ gisuñ Steve gisuñ Moussa Baro uh, sorry gisuñ Steve gisuñ Amadou Baro uh, gisuñ Omar Koli gisuñ Hamza Bari waaye most likely dinañ som dinañ ñëw waxuma ñëpp duñ ñëw parce que comme marché yi nga xam sax yi moo ne ñu ne exu sax mu si li xam si boppam hmm. gars yi wax ne moo tamit exu ko cëlee moom dañ ne moom ñëw comme eh, Moussa Baro Modou Baro Modou Baro Modou Baro moo ne moom a ñëw su ma gis Steve bëgg naa ñëw Omar Steve bëgg naa ñëw Omar bëgg naa ñëw so sooy mën naa fa ne ne si ñaar ñooñu léegi naa mën a focus pour ñu invité leen pour ñu ñëw Coly moom most likely dina ñëw ok Steve laa xamul exactly because last time fi mu jël jógee mu laa wax ne suñ ko invité. des na si famille des na si famille <laughs> xam nga. yaa xam nga dafa te sign na contract lu yàggul léegi soo ko ooyee dafa naa ne non maa jox sign contract dama gis. ok mu nga ko oo léegi mu ne dama jox sign contract mu nga ko oo léegi mu ne non suma parents suma famille bu ma ñëw. parce que already waxoon na ko mais xam nga yow loolu. loo am fi rek soo ko tarayee rek soo ko sànni rek ñëpp dañ jël ba pare ñëpp déglu dégg nañ ko te moo ma ne ko man su doon man la waariwuma suma gars yi man suñu ma invité maa ñëw pour soo ko ne man la woon ok ok soo ñun boobu moo si nekk kële bëggut a ñëw kële na ñuy ko ok soo ñaan siif mu ne suñ ko invité laaj famille mi ndax dina soo man nañ naa si man ñu concentré si Coly seet nañ ñëw parce que Coly moom orange moom bëgg naa ñëw. captain ok. alright uh, jërëjëf thank you very much uh, loolu lañ amoon fii si Star TV Sport ba uh, ndax Steve dina ñëw ndax Steve du ñëw loolu dinañ ko xool si kanam sign na contrat lu yàggut jamono bi nekk na ndaw lu nga xam ne comme ni ko Bacha waxee nañ sànni lii di appel bi angum bàyyi ko loo meekat ñu focus si Gambia against Algeria Steve wane na ne. Euh, suñ ko invité dina console li di famille bi Omar Kori nag pare na pour ñëw euh, jamono bi ndax Steve dina ñëw ndax Steve du ñëw euh, loolu dina leer si ay semaine si kanam di ñëw si Gambian football dinañ si def liggéey bu am doole nag xool jamono bi fa la ko bi toll Bacha ñu bàyyi la sa mujjanti di kàddu. mooy sant rek mooy li ma wax rek ci Star TV rek dañ ñu ngi wane eh, lu baax te nit ñaa ngi ko gis xam pare di sa technicien suba ñoom ñu ko génnee yaa nga yi laay liggéey yi laay partenaire su nekk ok kon léegi-léegi sax gis naa nga ne da ngaa edit léegi pour gars yi jàngal nañu mhm, mhm. waaw na ma leen sant daal di leen gërëm mhm. daal affaire si leer na moom because gaa yi ko seetaan mooy dama la ko de wane léegi dama ñëw gars yi laaj ma gis nañ la fii nangam gaa yi ko seetaan bu baax a baax waaye gën nañ koo téye rek ba pare nga wax boos bi ne ko mu yokka moyo yi mm-hmm. yi bagage yi war a gën a bari yànj xam nga mm-hmm. ñëw la xam nga so moom ngeen koo laaj moom mu bi ba pare santal la gërëm la a ngi génne yoo xam ne national TV bi ñu ko war a génne yéen national TV su ñu national bi ñun xam ne buñ buñ moom ak buñ ñeneen ñu moom so ñoo ñoo ko war a génne génne wuñ ko yow yaa ngi koo génne yaa ngi koo uti yaa ngi koo saaji noonu la da nga toog rek ñu jam la ko yow yaa ko di util sa bopp di la wane yow tam téel fu nga téye noonu rek sant la yow tam eh, gërëm bu baax a baax a jërëjëf thank you very gërëm bu baax a baax Mr Ba bu baax a baax dinañ ko gërëm bu baax a baax a baax ndig ne tey boo fekkee ne eh, ñu ngi gis Star TV si eh, wool bi moom mii di Mr Ba la ku yaatu la nekk na ku nga am ne very open nekkul di prison rek de waaye léegi-léegi mu jox ñu caméra si jox ñu edit so foog naa ne kooku euh, ku jara gërëm la ku baax la euh, gërëm ñi ma bu baax a baax moom it euh, yore bagage yi fële di swim left and right gërëm caméraman bi kii di Moussa gërëm leen bu baax a baax a baax Euh, dinañ leen jox dox daje nag benn next week waaye nag ne headline bi mooy ndax Steve Tarawale euh, dina ñëw playal li di Gambia versus ñi dema Algeria euh, kon nag yaakaar naa mooy nekka suñ headline bi si boppam si YouTube channel bi ndax Steve Tarawale dina ñëw playal si ñi di Gambia against ñi di Algeria et do or die game disqualified nañu si camp bi léegi nag ne am victory bi three point Algeria lu rekk fi des kon nag ñu jox leen dox daje benn next week jërë ngeen jëf